ñoo ngi nuyu mbokki jullit yëpp ñoo ngi siyaare ñëpp ñu ngi ndokkeel ñëpp ñu ngi naan ñëpp jàmm te di ko sàkk ñëpp ñu ngi ndokkeel umma islaam bi yëpp rawatina waa Daaru waa Daaru rawatina kilifa yi diine yi fi nekk ak ñu topp seen gaaw ñëpp ñu ngi sant suñu borom subhaanahu wa taala jox ndigal ndigal loolee mu jàpp leen bañ def ko nam ko waxe te ndigal loolu wax na ne bu ngeen ko defee mooy li gën ci yéen bañ tusu ma xerul la ko gàllankoor yi nga xam war mën naa am ci noonu ba duñ ko mën def gàllankoor yëpp mu teggil ñu ko ñu def ko ni ñu ko mëne kon lu mu dëxale ci ku jëfe ndigalam ci pay yàlla na ko suñu borom defal seen dencal ko fu mu wax ju mu tàmbali samay wax alxuraanul karim la suñu boroom subhaanahu moo ko wax loolu mooy ndigal li njëkk a jóge suñu boroom ñu ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam yu ko laata jox ndigalal julli wala ndigalul koor wala ndigalul aj makka lam ko njëkk a wax mooy jàngal ndax kii def te xamul dafay làmbatu te làmbatu mën nga daj mën nga ñàkk daj wax nañ ne te jibril ñëwee alayhi salaam ne yonent ko tontu ne ko maanaa bi xaari man mun maa jàng ma waxaat ko ko mu dellu ko mun maa jàng wax nañ jibril du ko xoj xoj ku xoj ku dëgër a dëgër ba mu sonn mun ko yàlla ne ko jàngal mu door a jàng loolu li ñu si jël mooy ñor bu xam-xam ñor suñu borom subhanahu wa loolu lañ si jële mooy alxuraan ji mu ne su ko jàng su ko jàng te tumuraan ki sa ndegam yonent waaye sallam dara ko xam kenn ku bëgg xam faaw nga sonn kon suñu borom xam-xam ñor na ko lool ndax moom la njëkk jox ndigal ñu na leen def leen ko diine lislaam diine xam la ndax diine la joo xam ne dafa bëgg jàmb waaye topp tayam bokkut ak diine yi nga xam ne dafa jël nit képp mu topp àllaaxira bàyyi adduna bokkut ak diine yi nga xam ne dafa jël nit képp mu topp àll tayam bàyyi ëllëgam dafa bëgg nit topp a tayam loolu nag koo bëgg faw faw nga xam tey ñu gis ne yont bu nekk dafa am boo ji sa bu la sa borom jox muy kawtéef boo xam ne ci li ñuy gëm ne yow yàlla la yónni moo ji sa boobu sama suñu borom jox yonent booba day fekk li gën a bari ci nit ñi ñu koy rawantee mu génne ko ca boo jëlee yonent yàlla Moussa alayhi salaam jamono jamono yi njabar la si borom jox ko loo xam ne ab jëpp ay ba jabar mënu ko def ba demee ci wàllu yonent yàlla Isa jamonoom jamono docteur la suñu borom jox ko loo xam ne docteur mu ko def mooy jëkkal ko faatu bu dee jamono alayhi salaam nag jamono xam-xam la mënante xam-xam la mu jox ko loo xam ne ba àddina tukki kenn du mën indi lu nu mel mooy alquran kër mooy xam-xam te suñu borom subhanahu wa taala bi mu ñu waxee ne xam leen daf ñoo dimbale dafa wax ne wala axrajukum min buyuutikum laa ta'lamuuna shay'an wa jaala lakum as-sam'a wal absaara wal af'idata la'allakum tashkuruun ndeke dégg gi ak gis bi ak xel mi bi gis suñu borom di jox subhanahu wa taala dafa bëgg xam moo tax ko ñaareel baat suñu boroom lu mu giñ ko ñor la lu mu giñ lu rëy la giñ ci xalam ndax bindukaay da koy ci xam loo nit lépp lu ñuy xam dañ koy bind te lu ñu bind lu ne bindukaay ko bind loo tax mu giñ ci alfa ci xalam ne nun wal xalam bu may storo baat nit ci borom da ko màggal jagleel ko xamam dong ku dul nit ku dul nit mënut a xam di ko sax xam nit ki liir day nekk comme mala mala lay doon ni ma lay doxe lay doxe day sukk benn langage bu mën a wax ay jooy kii lay xamee dafa mar wala dafa xiif wala dafa sonn wala lu mu gën a lu a di gën a xam di gën a tàggoog mala yi di gën a màgg di gën a xam di gën a tàggoog mala yi ba xëy xëy génn ci alamul aywaan kon nit kii di ko tàggale mala mooy xam xam-xam kon bu ko sàkk ne delluwaat cosaan nekkaat mala tey jàng di xam nit dong la suñu borom jagleel malaayika yi ñoo gën a jege suñu borom ñoo gën a sell waaye mënuñoo jàng mënuñoo xam ndax kë suñu borom dafay programme leen ci moom mi ngi mel ne yow mu yor ordinateur di ci nekk yaa ci def mala yi muy rey lu lu lu lu rey xamu ko rey la xam malaayka mi taw lu taw xamu ko malaayka mi si borom toogloo mun te taxaw na xam nu ñu taxawee ki taxaw xamu nu ñu toogee ndax seen programme yàlla ko def ci ñoom mënuñoo xam leen jinne yi ñoo gën a for nit gën ko ëpp leen doole waaye mënuñoo jàng mënuñoo xam ndax lu weesu fàtte nañ kon doomu aadama nit képp de si borom jagleel muy jàng di xam dëgg la nit ki dana tàggat mala ba di ko digal muy def ak a tere ab dawkat nit dana ko tàggat ba koy ba koy muy dem am seko nit dana ko tàggat lu wax mu ko waaye du ngeen gis mukk ci àdduna nit tàggat ma la mu toog ci banque di jàng di xam di bind du am ndax suñu borom boole ko ñu war a xam ñaareel baat bu fekkee si nit dafa jógal dafa jox malaayka ndigal ne ko ci nit wala su jóotal ci nit xam-xam a tax keroog bi suñu bi daaju ak àdduna dafa yëgal malaayka ne leen àdduna bee ma bind nit laa foog yóbbu mu nekkal ma fa mala yi kenn ko ëpp naa def nit tuurkatu dara la te yàqkat la boo ko fa yóbboo du fa def lu jàkk la yàq ne nun ñi nga xam dina tooñ mukk dañ def lu noona ñoo yeewu di ko àdduna borom ne leen ma fa def lu am njariñ loolee ma fa def nu mu tudd ak lu ma jariñ laa bëgg ngeen wax ma ko ñu ko xamuñu ko xam ndax loolu ñu xamuñu ko mu ne Adama digal wax leen digal wax leen ko Adama jóg leen lu nekk mu ne lii nangam na tudd nangam ay njariñam lii nangam na tudd lii nangam ay njariñam suñu borom ne leen su kon xam-xam moo tax yoon fi jox jox ndigal malaayka yi ñu siyoo ci aadama waaye du génn sàll gën a jege suñu borom kon nit ñëpp war a si ittoo xam-xam waaye rawatina jullit ñi ndax yonent alayhi salaam xam-xam da ko ñoroon wax na ba tàyyi luy wax ñu xam ne luy tax ñu xam ne xam-xam ñor na ko def na ba tàyyi luy tax ñu xam ne xam-xam ñor na ko wax na ne sàkku xam-xam faratal ci bépp jullit bu góor ak jullit bu jigéen talabul ilmi faridatun ala kulli muslim muslima sàkku xam-xam war na ci képp jullit bu góor ak bu jigéen wax ne tam ne ki jóg laxas di jàng di wuti xam-xam yàlla sàkkal ko yoonu àjjana yoonu àjjana ubbi ko na ba noppi yàlla xalal na ko wax na ne it ne xiyaarukum fil jaahiliyya xiyaarukum fil islaam tafaqahu ñu nekkoon ay noobel gën ci nit ñi bu ñu duggee ci saam ñooy gën bu fekkee xam nañ bu xam nañ kon loolu ay waxam la loolu ñor na ko jëf na lu tax ñu xam ne xam-xam ñor na fàttaliku leen keroog ñu xeexee Badar ba jàpp ay prisonniers yu bëree bëri yonent bi dafa ne yéefar yi ku ci mën a jàng ab lim ci jullit ñi bañ mën a jàng mën a bind ñu libéré leen nga dem ñu jox ay lim jox leen ñu jàngal leen ku ci mën a jàng nit rek ba mën a bind mën a liir ñu libéré ko mu libéré ko mu dem ko jëf la ju war ne xam-xam yor na ko jël na itam ab jàngalekat bu jigéen ñu koy wax chef a indi ko ci këram di ko fay weer mu jàngal waa këram Seydina Afsa suñu yaay Afsatu soxna si ko jàngal ba mu xam mu toon mu toon a suñu borom may bay wuñu wenn lay def ne fa nga nekk boo fa mënta jàng laxasal dem wuti feneen fa la walaa nafar min kulli firqatin minhum taa'ifatu liyatafaqqahu fi diin wa liyunziru qawmahum isaaraju ilay fi nga nekk fa xam-xam nekkul laxasal dem fi dem fa jàng ci xam-xam te dellu si fi nga jóge woon ñi xamatul nga xamal leen kon nit ci boppam daa war a fonk xam-xam da nga bëgg na garder ak nitam waaye bu fekkente ne nit ñëpp a war a xam julli topp ci waaye mu dee caraw ndax lu war def mooy Sëriñ Tuubaa fi mu teg xam-xam ak yi mu ci daj kenn daju ko biñ ko tuumaale wax ko ne ko da ngay fesal jihaad Sëriñ Tuubaa mimu ko dafa ne wax ngeen dëgg ba ma xaalukum inni jaahidun saadixun inni wajulaay jàllahu jaahidu wax ngeen dëgg damay xeex ngir yàlla waaye nag da ngeen a juum ndax nga ne ngeen jàpp moom laay xeex man xeexuma ko inni jaahidu tuqaa abdan xadim wal muhaymin saahibu man xam-xam ak ragal yàlla laay xeexe loolu la Sëriñ Tuubaa wax kon xam-xam ñor na ko te bi mu nekkee si réew mi sànq yëpp Sénégal yëpp da dëgmal ko ndaw ñoo ci woon booba ndaw ñi la ñuy soxla ndax booba ndaw ñoo am kattan booba kattan la ñuy liggéey ndax machine amul boobu bu leen ñoo xam jëfandikoo leen bu leen téye woon ne leen jël leen bayal ñu koy bayal leen jël goral ñu koy goral waaye wax leen loolu dem leen sakk ñu xam la wax yaa marché suba kutum xajal faxa di moo taala bun alaamal lagg leen sakk ñu xam-xam fekkee ragal gën am kersa la kon kay nit ci boppam moo war a moo fonk xam-xam te bu di ko wut léegi bëgg naa nekk di continuer waaye jullit itam moo doon fonk xam-xam ndax seen yonent alayhi salaam seen moo ci saam mooy xam-xam waaye murid seen bopp ñoo ci raw ñoo war a gën a xam ndax suñ sëriñ ngànnaay yi muy xeexee mooy xam-xam teñ xel ci ne ki déclaré ne damay xeex ñëw na ko dama jàppale te yoroo ngànnaay yam yor da ngaa faral ko xeexal da ko kontar ndax day lay boole ci lim ñuy xeex te xeexoo kii xeex bu yoru yet yoral yet moom bu yoroo jës yoral yi moom waaye bu nekk sa loxo ko day jàppe ne soldaar yi nga bokk téeroo nga naaj kon jaat seen Tuubaa yi ku ci bëgg a bokk faaw nga xam teñ bàyyi xel ci ne jiyaat bi du yem waaye du tukki jeex ndax ak ignorance ak réer du fi jóge ak mbon du fi jóge kon jiyaat day continuer kon ñëpp war a xam rawatina murid yi murid ñëpp war a xam waaye rawatina doomi sëriñ Seex ne diinu ci seen loxo la jëm ñii doomi sëriñ ñoo war a gën a xam ndax diinu ji dina xam la du ngeen fekk benn diine bala du ngeen fekk benn métier ñu ne diw kat chef la ci tam réeral loolee doom ma sama dem dëkk benn dëkk police laaj laaj ma ne ma lan moo se sa profession lan mooy sa liggéey ma ne ko chef religieux la mu ne ma loolu méttoon na lool waaye dinaa baax ne li ma wax dëgg la maa ko doon di ko laaj sama bopp lan laa defal diine ba tax ma nekk chef ci diine ji maa ko doon di laaj sama bopp kon diine ji ci bokk nekk chef xam nga xam du ngeen fekk benn métier ñu ne kii chef bi taxut taxut lool du ngeen di mukk ci garage bi mécanicien ñu ne kii mu chef garage bi te mu ta rekk boloo mënu ta mën boloo du ngeen fekk mukk ab monsieur atelier téer muy ñaw ñu ne kii mooy chef atelier bi mun ta ñaw mootu mun ta ñaw Moussa doom diine lislaam kenn ngay fekk ñu ne kii mooy kilifa diine gi te xam nañu xam ci diine daal loolu lu lu sikka la si ñun ba ca topp genn kilifa diine genn kilifa àdduna dafa mas a dénk genn kilifa diine fii ci réew mi bu baat ne na ngeen jàngal seen seen seen xale yi jamono jooju jamono jàng la bu ñi ngeen yëlf tey seen njaboot ëllëg ñooy ñooy yëlf seen njaboot te booba seen njaboot dañ sonn nañ jàng na benn délégation bu suñu si na Omar benn xale bu ndaw jóg jël para boobu bëgg wax ci turu mbooloo mi na ko yow mi ak gën a néew dangaa war mag wax xale na Omar damaa jàppoon ne di diine xam la dëgg la ñoom ñoom ñoom ñoom ëpp at waaye ma la xam-xam ma jàpp man ma xam maa war a wax ñoom ñu xam ñu noppi si naa ba daal ree daal leen si am na dëgg amar juum na daal kon na say wax kon dina ci dina xam la wax ci dama koy moom sama bopp ndax adduna dafa daqaree waxe ba waxee mën nañ ne diw ko tax di wax wala diw ne maa ko tax di wax wax ci man maa ko moom damaa wax ne <clears throat> damaa juum juum tal méttee méttee méttee juum tal loolu indi ma jafe-jafe métti sam dund loolu mooy <clears throat> Sëñ Tuubaa daf ma dénkoon ne ma na nga xam bala ngaa jëf loolu na nga xam ngaa jëf ma ne ko jëru ko ma ne waxtu bu jëf jot ba jëf tul ma ja xam loolu loolu du ñum ci man ma rëcc ko lool fekk kat suñu taxaw ne mën na ma boo ko deful ëllëg da am gàcce ma dellu njuum njuum te métti métti loolu mooy bi ma am bi may amee temps war a jàng nangu ma woon a jàng dama na woon rek naa bañ a jàng saa bu ne bi doon mag sama sant wi di mbàkkee ma sol ko def ko manto att ci nit ñi diine dëkk lool muy jom lu metti waaye nag la ma sintoon toon wala lépp gis naa ko am na kersa dama dikkal ci ñàkk dox ndigalam loolu mooy sama nawle yi sama nawle yi bu ñuy def duñ ma woo duñ ma yóbbaale te bu ñuy def duñ ma ko yëgal te ñoo yey ndax fañ jëm ak la ñuy daje muy jinne xaw ma ca dara boo demee xooy xooy looga laa fi vidéo moo tax duñ ma yóbbaale may dem loolu li gàcc ci man ma dellu ma gàcc bu méttee métti métti ci ñett di ñàkk joxe ndigalu sëñ bi la ma dénkoon ne ma boo ko def da nga am gàcce dëkk gàcce gi dikkal ma loolu mooy dëkk bi ma nekk bi fi sama am nekkee ñaari bët lañ ko doon xoole bi fi sama sama baay nekkee ñu koy xoole ñaari bët man ñu man ñu doon xoole benn bët mu naqari ma lool waaye xam naa li tax loolu mooy dëkk bi dama leen amul dama am amul njariñ amul mu leen njariñ bu dee côté développement bokkuma ci du ma samp du ma simpi du ma yëkkati du ma toxal dëkk bi fu mu àgg ñeneen ko ñeneen ko fàggale waaye na du man diine participe moo ci ndax jànguma jàngale wu ma te kenn réer a masal laaj ma ko lii tax dëkk bi dama xoolee bët ba loolu di gàcce ci man genn gàcce gi moo di ne fu lamb dina sàjje ma daw fu lamb dina sàjje ma daw ndax da damay bañ ku ma dëkk ndax bu ma dëkkee du man bu ma ñàkk bi dama burus te ku ma róofal nga romb fi suuf tax damaa réer diine kon yéen ñoo xam ne yéen laa bëgg a sant muy Mbàkke ñu toll ci xam nañ góor jëm a xam ndax yëf yaa ngi ñëw te jege na ci seen loxo la jëm nit nag bu ñëwee ci yow da nga koy def ci moom fàggu fàggu ko mooy ngi ji moom xam-xam mag ñi li ñu yor ci seen loxo la jëm kon fàggu ko téye te dañ bàyyi xel ci ne nit ki bu fekkee dañ ne ko yaay la fi diine ji wala yaay la fi diine ji diine ñam ñam ñam yëlëf xam diine ji day leen daragal day leen doo digle doo tare doo digle doo tare ndax da ngay a digle loo xam ne diine diglewu ko bala nga tere loo xam ne diine tëddewu ko muy gàcce ceew kon yaay jiite waaye yow topp ginnaaw ñi nga jiite yaa leen jiite ci kaw waaye ci kanam seen ginnaaw ko topp loolu nag gàccal sëriñ kon ñu sant Mbàkke ni man ginnaaw bañ nañ gàcc gi man la dal leen nañ góorgóorlu jéem a xam te xam ne yëf yi ak seen seen loxo noppi nañ jéem ko jéem a saytu dañ koy jéem a saytu yor ko ba ni ko mag yi tàggate woon mu loolu continuer mooy jéem ma xam maa ngi jégalu ñëpp maa ngi balu ñëpp pàq wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu